nanguwuñu li nga xam ne moom moom lañ naan proposition la nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko suba. ñu daal di toll euh, ci ñaari jun ak ñaar fukk ak ñett ñoom ñile di adjoint au maire yi. gannaaw ba ñu xaatimi ab mémorandum euh, bi ñëwaat ci jafe-jafe yi ñu jànkonteel boobule kaayit nag seeni njiit maanaam fara yi daal di koy jël jébbal ko njiit yi la fa tukkee daanaka ñu yemale ko seen bopp bu ñu sukkandikoo nag eh, ci njiitalu lël bi ëmb adjoint au maire yi eh, dañ leen a wor. ñun ñoo ko bind xaatim ko amul fenn fu ko association des maires génne donc ñoom ñu plagiat loolu jël ko dem utiliser ko mel ni ñoom ñoo ko defal seen bopp toog négocier beneen bi gën a garaaw mooy indemnité yi ñoom ñu jëlal seen bopp. ñu yokkal leen cinq cent mille ñun ñu yokkal ñu fukki junni. seeni joytu ñu tënk ko ci juróom-ñeenti poñ yooye nag ñoo waroon soppi xar kanamu ñiy liggéey eh, ci collectivité territoriale yi ni ko président de la république xamle woon wante nag furaas. juróom-ñeenti poñ yooyu boo ko xoolee dañ ne ñu revaloriser eh, statut locale local revaloriser indemnité yi ba pare xool dugg ci yeneen maanaam retraite communal wax eh, protection de. médicale parce que amuñu benn couverture médicale wax indemnité de session ñiy dox ay kilomètres kilomètres pour ñëw fekk ñoo doxaat dem loolu dañu xool ne que ça crée fois manque de quorum. ci saa si la ñu génnoon daal di fësal seen naqar gannaaw ba ñu fësalee ab kaayit talaata yem ak ñaari fan ci weeru janvier lël bi ëmb adjoint au maire yi nekk fii ci Sénégal dinañ amal ab ndaje suba incha allah balaa ñuy daal di saafara seen i jooytu. ñuy ñaax njiit yi daal di ciy àddu